ah gis-gis bi rek mooy euh, gis nañu ne li ñuy jiital rek mooy jàmm ndax lu dul jàmm jàmm ko gën mais gis nañu ne ba tey itam booy def jàngat wane ne élection du affaire ay parti donte nag bu yàlla defee ñuy fal mhm. ñaam ay parti li ci ëpp mu ñoom la ñuy fal mais tey biñ ko reporté gis nañu askan wi génn wan leen leen wan leen ne leen yéen dañ leen di fal mais falu leen seen bopp dañ leen di fal pour abse pour ngeen di jaamu ci suñuy soxla ngeen jaamu ci suñuy yitte moo tax buñ ko reporté askan yëpp jóg su boobaa nag dana tax même ki falu dana xam ne ñoom faluñu leen rek ñoom faluñu seen bopp moo tax bi report bi amee moo ne waat beneen xar kanam kuréel yi nekk ci biir réew mépp jóg ñi politique ñi nga xam ne ils sont apolitique jóg nañu wane seen bopp wane na leen yéen dañ leen a jël pour ngeen jaamu suñuy soxla. boo amoon bu fekkee buñ ñaax boo nga bi rek mooy lii ku mu yeewul dara dootu la yee. Mm-hmm. parce que dañ lay fal. say mbokk ñëw na leen liggéeyu ndey la déedéet dañ fal pour nga jaamu soxlay askan wi mm-hmm. moo tax bañ demee ba dugg ci rapport élection dégg naa sut gis nga secteur yëpp a jóg leçon bi ma leen di jox rek mooy ñu xam ne ñoom ñu seen bopp dañ leen a fal mhm. pour ñuy jaamu soxla askan wi mhm. dañ leen a fal pour ñu ne ci suñuy yitte mhm. euh, loolu dafa am solo kon moo lay wone daal lii ku mu joxul leçon dara dootu la jox la politicien bu ci ne lii war a laa servir dara waaw beneen bi bu njëkk ba na nga daan nas ay at wala ay weer xale yi doo ko xam mais ak technologie bi xew léegi loo nas rek xale yi xam ko kon li ñuy def ak askan wi na leer hmm. li ñuy def ak askan wi na ne ci njub su ko hmm. defee da nga mën a liggéey ni nga mën a liggéey correctement dara du la déranger waa xam nga nervi sax léeg-léeg gars yi yàq baat bi ne ku ne xam ne ñun 88 maison du parti ñu ngi fa woon ànd ak Abdoulaye Diop Makhtar. Khalifa Sall ak yàlla na ko yàlla waaye ak mbàkk yu y mi hmm.

wala nga def nangam su boobaa ñun dañuy bañ ndax ay sportif lañu mën ngaa ànd ak nit ci wàllu sécurité mais ay dóoral ma nit wala jamal ma diw noonu ñun daawuñu nangu xale yi ànd ak di ko def ndax ñun daawuñu ko def. Mhm. su boobaa nag gis nga am na. non am na mais moo tax nag dañ naan xale yi bu leen kenn def loolu bu leen dóor nit bu leen gaañ ndax seen i frère ak seen i sœur bu ngeen dóoree ñoom ngeen di dóor bu ngeen dee gaañ ñoom ngeen di gaañ. loolu nag man man dama koy conseillé samay xale duñ fa nam mm-hmm. ndax benn quinze mille journée quinze mille francs te politiciens yi ñi ëpp ci ñoom période bii da nga leen jege. Mm-hmm. mais bu demee ba jàll woo ci nit jot ko téléphone sax du yomb mm-hmm. kon nit da ngay gëm sa bopp li am solo nag mooy boo dee yëngu ci wàllu sécurité am diplôme ci wàllu affaire sécurité su boobaa yemal ci liggéey boobu rek mais bu la kenn def loo benn violence ndax loolu violence la dóoral nit jabal nit lool violence la lool nak ñun duñ ko conseiller suñu benn mbeur yalla def nak ñun li ëpp ci suñu mbeur sax nak ñun top ñay politique